am taxawaayam ci Sénégal d'abord ci Touba waaye ci département de Mbacké bi ja affaire yi métti dëgg dëgg dëgg mu ànd ak président Ousmane Sonko fépp foo xam ne am na dëkk am na taxas am na kàmb am na dëgg sërëx mu ñaaj ànd ak président Ousmane Sonko dugal ko fu ne ci Touba ànd ak moom fu nekk nekk jàmbaar bëgg Sénégal li ci wàllum social rek. ci département de Mbacké surtout commune de Touba gis ngeen ne daanaka doo leen toog un mois wala deux mois boo xam ne yëgu leen ne sëñ Cheikh Thioro mu ngi gestu population bi mu ngi def lépp loo xam ne war a leen taxaw mu ngi leen koy taxaw donc kooku moom la ñuy wooyee l'infatigable coordonnateur sëñ Cheikh Thioro Mbacké ñi ngi ñaan ngeen tàccul ñu ko ñun ñëpp moom nag day wax ci turu investi yëpp maanaam moom su waxee waxaaleel na ñëpp ñi nga xam ne investi nañ leen muy départemental muy national dina yóbbaaleel ñëpp incha allah bu ko bayee bu ko defee ñu tëj donc ñu may sëñ Cheikh Thioro loxo bu baax a baax may leen ko loxo bu baax le coordonnateur nekk tête de liste départementale ngeen ñaan ngeen may ko loxo bu baax. voilà ñu toog àndandoo déglu rek. salaamaaleykum wa rahmatulah. salaamaaleykum wa rahmatulah. damaa bëgg ñu déglu na tuuti rek. bala bala ñoo tàmbali. ñu def une minute de silence. ñaanal nga xamante ne ñoo faatu ci combat bi. suñu borom yërëm leen taxaral ne àjjana dina kawe. ñu déglante tuuti rek ndax ku fiy dem nga am loo yóbbaale saal bi xam na waaye dama bëgg ñu déglante tuuti rek bala maa tàmbali di jiital ci nuyoo ak siyaar bi Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal sama borom mu yàgg fi loolu te wér di kilifa diine yi ci yëpp di ñaan yàlla lii dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rahmaani rahim di nuyu mboolem ñu fi teew ñëpp di jiital ci nuyu bi ak siyaar bi sunu coordonnateur départemental muy Ahmed Lo di nuyu candidat yi nga xamante ni dugal nañ leen ci liste département bi muy honorable député soxna Fatma Mbodj honorable député soxna Khady Sow honorable député soxna Awa Seck honorable député Cheikh Bara Ndiaye honorable député Mansour Faye honorable député Ren Bara Diop honorable député Bara Ndiaye Baba Ndiaye honorable député Birame Diouf boo gisee ma lim ñëpp ku ci nekk ma jaar sa tur da di fiñ tàmbalee moo sore Pastef am histoire mais Pastef département Mbacké it am histoire ndax tey jii am na ci xamante ni ñi fekk woon tàmbali maa bi surtout ki ñuy dam na ànd ak ñoom Ahmed Lo na 2019 su ma juumul kooku tey jii bu ko ay député wala ña am ay ministre mën na laa a wax déedéet kon buñ tollee foofu ñu ne Pastef ma ngay def élection département yi Sénégal yëpp am na fa ay liste mais am na ci département Mbacke ay liste leen di présenté war nañ koo def ci anam bu mucc ayib moo tax parce que yàgg na am permanence sama gars yi ñu dul la tuuti rek ñu eggale kon bu ñuy dem ci élection yu mel noonu ñu ne Pastef am na liste liste boobu ñi ci nekk war nañ leen a présenté xam ne jógewuñ ci asamaan su ñu def leen ci liste yi daa am fu ñu jaar bañ def leen ci liste yi foofu ñu jaar nag Talla ñaar ak Maawa Mbaye présenté nañ leen du ma ci jël si waat mais man li nga xamante ni dama koy éviter bis bu yàlla sàkk dama koy moytuloo ñu bëree bëree bëree bëri mooy diw daa am mérite moo tax mu nekk ci liste yi maa ngi profité di nuyu waale monsieur le ministre Moussa Balla Fofana moo yegg si maa ngi koy nuyu te ko dalal ak jàmm fii ci Mbacké ak ci benn benn ñun mooy suñu féete ci wàllu gouvernement bi ndax moo dëkk Njaareem di doomu Njaareem di taalibu Sëriñ Tuubaa moo tax tey ma eggale fi tolloon rek daa la ñaa wax na ko léegi lim na candidat yi investir ci liste département ku ci nekk mu wax sa jaar-jaar wax fi nga tàmbalee ba fi nga si mu dindi ko tuuti mais man li may wax te dama koy bañ li tax ma koy bañ tamit dinaa ci ñëw léegi mooy diw moo am mérite moo tax mu nekk ci liste yi pour man ñi investir ñoo ëpp mérite ñi investir kon parce que bu dee dafa am ku ñu rendre bi nga xamante ni dafa nekk di koy kenn ku ko xam kooku la ñu rendre hommage kon maa ngi leen wax ngeen feer seen bopp te département Mbacké projet bii ñuy wax projet Pastef liñ ci suy amul benn département bu ko suyee Sénégal kon bu ko suyee di bind histoire de bi département bi moo doon ko baax seen bi loolu nag bu doon xaar kenn waxal leen ndax jamono ji fëkk jafe bu bëri dinañ ko waxal seen bopp moo tax bi son excellence président Bassirou Diomaye Faye ñëwee Mbacke ma ne yéen waa Mbacke da war a ngeen tàcc seen bopp li taxoon ma ne waa Mbacke da war a ngeen tàcc seen bopp mooy bi jàpp jëkkëri produit liñ jàpp lu dëkk ci département Mbacke mi ngi dox mi ngi dox mi ngi ko rajo mi ngi dox bii mi ngi wax xoolal ba xam dox waaw bii mi ngi dox mi dox mi ngi dox ah loolu li ma leen di ñaanal mooy yàlla bu naax saay baax sëñ Tuubaa ndax bu naax saay naax saay nag du caagale mooy ñu am ay poste de responsabilité naax saay du caagale mooy ñu am ay poste de mais naax saay mooy li président Bassirou Diomaye Faye digé woon ak Sénégalais yi li premier ministre Ousmane Sonko digé woon ak Sénégalais yi ñu dem ba ci cëppaandaw bi loolu mooy naax saay kon loolu nañ ciy dellu si bis bu yàlla sàkk bawal dafa jot mu nekk bawalu si Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul li Serigne Touba daal gànnaaw si suuf mu jàll damay ñaan yàlla mu sottee ci loxoy président Bassirou Diomaye Faye te xam ne loolu dina am moo xam ñu fekk ko moo xam ne bañ ko fekk kon bu fekkee ne projet bi dañ koo fal fale bu mucc ayib département Mbacké suy niroo du am solo ndax ci bisu élection présidentielle yi jàll président Ousmane Sonko bi mu wootee ba génn bureau de vote avant muy egg këram man la njëkk a wane foofu wane nu mu demee bi ma ko yónnee image daf maa woowaat ne ma man sama xel dal na mën na maa dem nelew te xam nga élection dañ koy gañ kon mobilisation boobu ngeen amoon ak engagement boobu ngeen amoon damaa bëgg ngeen yokk bu baax a baax a baax a baax te nag bu baax a baax a baax kon boo gisee maanaam projet bi ñi investir ci liste yi ñi investir ñoo la ëpp mérite côté boobu benn la ci barki démb it ma waxaat ca Dakar bi waa Morab di def seen cérémonie boobu ñu doon def ma projet boo xamante dañ koo yëkkati ay bakkan faatu ji foofu ëpp naa wax diw moo am mérite ëpp naa wax diw na kenn ko am mérite ci projet yooyu nga xam dañoo génn di xeexal seen réew ba président Macky Sall rey leen ci aloxo Antoine Diome ñooñu ñoo am mérite kon fii toll ni moom a nekk benn la ndax mënuñoo am liñ bëgg te nekkuñu benn loolu c'est impossible kon lépp lu nekkoon benn dañ ko war a yokk war ko renforcer ba le 17 te ngoon ñu gagné département bi gagné bu mucc ayib képp ku ñu dugal ci liste département bi a partie de maintenant mën nañ laa woowee honorable député man loolu maa ko département yi ci Sénégal yëpp bu ñu meloon ne département Mbacké mën naa ko waat ci yàlla ne majorité ensemble national dinañ ko am ba mu jéggi dayo ndax fii combat amu fi ndax ku nekk ku wéet xam nga kala man département Mbacké combat amu fi ndax ku wéet xam nga kala man man de fii ci kanam ak écran mooy Pastef bu perte département Mbacké bu bàyyi politique Pastef Pastef la Pastef la patriote maa ko bu perte département Mbacké bu bàyyi politique man maa leen daan def lañ leen a defaat ñi ñu jàkkaar loolu mooy ASC mine defet benn benn argument lañ am mooy argument jéem ñooy diaboliser ak suñu kilifa yii ci Touba te loolu yaakaar naa du jàll ndax bu dee taalibe ñoo leen ëpp bu dee bokk Sëñ Tuubaa ñoo leen di gën a bokk kon jàpp naa ne ñoom ñu fi toog 12 ans te defuñ dara Touba ba Touba bu tawee tey ji mënoo accès jumaay Touba ndawi pour cent ñoom kenn amu ci liggéey xale yi Touba yi mënuñoo faju kon bu fekkee ne ñoom waroon nañ wax ci politique dañoo war a làqatu ba ñëw génn kon Pastef bu fekkee ne am na adversaire adversaire Pastef mooy Pastef adversaire Pastef mooy Pastef mooy dañoo mën a dugg ci débat yu terre à terre débat yoo fi ñu toll benn combat lañu war a am mooy jox majorité président Bassirou Diomaye Faye ndax ñun ñu nekk assemblée nationale xam nañ bu baax a baax a baax a baax saay saay si bu ñu amee majorité assemblée nationale mu mën a xew ci mi ndax nag ci diggante bu gàtt président Bassirou Diomaye Faye jot na faa indi ay loi pour ñu wote ko laaj leen ma ñoom lan lañ def jamono jooju Thank you. di ci soixante mille trois cent cinquante ci département bi ñu yóbbu ci cent soixante mille cinquante trois mille trois ci mooy Pastef ndax ab département mënoo bi ngay tàmbali mënoo woon a am mille voix ñu ngay xeex di jóg ko daal ñu xeex naan gone yi jëmuñ fenn amuñ ambition ngeen jëlee 1000 voix yooyu yóbbu ko 192000 voix jàpp naa ne boo leen fi taxawee ne am ngeen adversaire yéen war ngeen xoolaat bopp baax baax baax kon gëm naa ne képp ku nekk ci liste département bi mën nañ laa wooy honorable député mën ngaa commencé nekk ci banque yi mën ngaa commencé tëdd nelaw te ne fii dañ ko gañ kon élection yi ñu dëgg man ci laa bëgg wax tuuti day élection yu am solo ba dañoo ni ko Cheikh Mamadou Diouf Mountakha bëgg loolu lañ ko koy defale mooy Touba bëgg fa benn activité politique Pastef jël na ay décision ak ay responsabilité lépp activité politique bu ñu def ci Mbàkke lañ koy defee ak li wër département bi mais Touba du fa politique ndax Cheikh Mountakha bëgg moom na ñuy képp koo xam ne da ngay activité politique ne Pastef laa bokk ñu ngi lay ñaan nga respecté loolu nga xam ne Cheikh xotti war may dëkk bi am na ci ñoo xam soo ba ngoon jot li ñu xante woo mooy jéem leen a xool lu ñu leen taqalee yoonu murit wala ñu taqalee ak Serigne Touba te jàpp naa loolu du sotti kon lépp luñ bi ñu toppaat tamit ma di ko waxaat dafa am bor bu ñu amee rek ñun waa Mbacke bor boobu gis nañ ne Kër Massar mooy parti de Kër Massar boobu ñu suñu tawal ñu patriote yëpp meeting bu mucc ayib boobu keroog ci meeting ba bi mu paree damaa gëstu dama sëñ ndax yéen waa Mbacke pare ngeen pour ñu jox leen meeting ma ne ko nit waa Mbacke pare nañ mu ne ma ko dinaa fa ñëw bi ko Antoine ñàkk jom déggee xam ne Mbacke bu ñu Ousmane Sonko ñëwee dina ko mu def tout pour wax préfet bi fi nekkoon pour ñu ne interdit manifestation ñëpp xam ne ne bi ñu ñi ñoo taxaw ne kenn du ko ba xeex kon jàpp naa ne meeting boobu président Ousmane Sonko amee na waa Mbacke dinañu ko fay ci élection yi parce que nag dama jàpp ne ñu ko jiite xamaguñ ba léegi Pastef jan doole la am ci Sénégal moo tax ñu yëpp ñu yëpp boo xamante ni bi ñuy wotal Arena ndax ku ci nekk xam ne Dakar Arena la fa xew démb pour man yëpp waa Pastef la ak toroxal waa Pastef kon bëgg naa président Ousmane Sonko maa ngi koy ñaan di ko ñaan waa parti bi mooy ñu jël sac bëggee bi def meeting de clôture wala ñu def de ouverture ndax département Mbacké loolu la soxla pour mën a démonstration de pour mën a démonstration de force kon tey kaddu yu du gudd présentation de candidature la woon ta taala ñaa ñëw na ci ak maaw mbañ loolu duma ci dellusiwaat ndax buñ ne Amadou Lo mën a indi si département kenn ku bokk Pastef kuy laaj kan mooy Amadou Lo buñ ne Jogomaay Jow kenn xamu ko ci am na ñu ko xam ci département bi kon dañuy ñi nga xamante ni ñoo nekk ci list nationale yi te dëkk ci Touba ku ci nekk xam ne ne Pastef liste bi mooy Sénégal Pastef liste bi Sénégal la féetewoo ndax bu ñu xoolee mouvement yi nekk ci parti bi benn benn benn benn benn xeet Sénégal ndax soxna Awa Seck bii nga xam ne la mooy mooy la léon de Pastef la ko ñëpp du waaye taxawaay mate ko ak góorgóorlu mate ko engagement bi parti bi mate ko mujj itam moo moo monap muy mouvement handicapé ci parti bi ñëpp gis nañ ñooñu ni ñu leen delloo loon ginnaaw ci xel bi ñëpp gis nañ ñu leen doon minimiser kon président Ousmane Sonko bu ñëwee ko bi def ko ci rek ngir da koo bëgg def ci liste bi mais da koo ci def boo xamante ni xam ne ne yéene na ko pour mu nekk député kon bëgg naa yéen ñëpp ngeen tàcc soxna Awa Seck a xam ne jàpp naa ne jàpp naa ne bu eggee assemblée nationale dina fa teewal askanu Sénégal mais dina fa teewal handicap bi yëpp baax a baax a baax a baax ndax yàgg na ko def avant muy nekk ci liste yi moom député la woon kon bu eggee assemblée nationale yi continuer liggéey bi ndax loolu député nekkoon kon bëgg naa ne tàcc ñu ko baax baax baax Cheikh Bara Ndiaye du ma wax ci moom ndax Sénégal yëpp gis nañ taxawaay li Olof Ndiaye di wax naan lu ñëpp xam loo ci wax da nga koy gàttal taxawaay moo waral tey jii moom avant ñu koy ci moom it député woon ndax député du dara dul waxal askan te heure yi wala mu am antenne lu mu gàtt ba ñëpp dégg na kii waxal kon moom avant ñu sax député de peuple la te day ñaan yàlla ngeen tàggatoo ko baax a baax a baax a baax li taala ñaa léegi ci biram du ma ci dellusiwaat damaa jàpp ne président Ousmane Sonko daf koo rendre hommage ndax diw bu ñu ne diw mooy suppléant président Ousmane Sonko rek Sénégal yëpp war nañoo xam kooku lan la ak fan la jaar ba président Ousmane Sonko war koo def suppléant mais fi mu jaar rek mooy tey jii moo njëkk a doon coordonnateur Pastef Touba jox Cheikh Thioro mu wutu ko loolu rek doy na jaar jaar ndax Pastef Sénégal yëpp la am doole mais Touba la ëpp doole ci Sénégal Pastef Sénégal yëpp la am doole mais Touba la ëpp doole ci Sénégal moo tax ñun waa Touba combat bii di combat Pastef duñ ci mbubb ak Touba yi mais caaya nañ ci damay ñaan yàlla bu ñu eggee le 17 ñu firndeel ko di rendre hommage nag jeunesse patriote département Mbacké ndaw yi Pastef yi ci département bi maa ngi leen rendre hommage bu baax a baax a baax te xam ne Pastef biñ koy jël ñun au niveau département Mbacké liñ gënoon a compté wu mooy ndaw ñi ak jigéen mais ñëpp gis nañ ne bi ndaw ji ñëwee ci projet bi liñ ci yokk amul kenn ko ëmb kon Madiaw Faye yaa ngi ñi nga àndal ñëpp maa ngi profité ci occasion bi di leen rendre hommage bu baax a a baax a di rendre hommage tamit maa ngi Pastef Touba yi ndax mën nañu bàyyi mën nañu nijaay man nañu maam mais dañoo boot roggantiñu heure bu jafe-jafe amee magi Pastef bi ñooy dugg ci groupe bi recadré ñëwaat nañu fii ngeen war a teg seen tànk kon magi Pastef département ci njiital Moussa Faye maa ngi leen sant di leen gërëm baax a baax a baax di gërëm nag ak sant coordonnateur communal yi nga xamante ne ñoo nekk ci Pastef département Mbacké yëpp te jàpp naa ne lépp luñ doon bi biñ gisee liste bi seen xol sedd na ndax liñ yàgg di joytu mooy heure bu ñuy def ay liste dañuy tëb commune yi te gis naa ne tey jii jël nañ seen doom muy jogamaay jow jogamaay dinaa taxaw ci moom tuuti damaa bu baax a baax a baax ndax man nga ne ndax man nga ne jërëjëf ndax man nga ne ndax man nga ne Touba ak Mbacké Pastef liggéey na ci Touba ak Mbacké Pastef liggéey na ci liggéey bu mucc ayib mais boo demee Sadio moom xamuñ jomaay xamuñ Sonko mais jogomaay jow lañ xam loolu mooy dëgg ndax ñun dem nañ fa campagne législative 2022 dem nañ fa campagne locale 2022 bi mu jógee Europe fekk na lu ko jiitu liggéey na liggéey bu mucc ayib Sadio au lieu muy laaj mairie ba mais waa Sadio ñoo dajaloo ne ko ñëwal ñu jox la mairie Sadio muy wut liste bu mu demee comme jàll loon sa loxo boobaa di ko jox ne kaay jël sama liste mais moom moo choisiroon liste Yewwi Askan Wi dem ci gagné Sadio bi mu gagné Sadio président Macky Sall woo ko bëgg koo convaincre comme ni jënd maire yëpp mu taxaw ne projet Pastef laa gëm jënd carte de membre président Ousmane Sonko jël ko dugal ko ci bureau politique bi ba tax na tey jii mu taxaw bi def ko ci ili yi kon maa bëgg leen tàccul ma Jogomaay Diaw ku mérite ñu sant ko gërëm ko kon monsieur le maire Jogomaay du ma la wax nan ngay def ndax ni nga def ndax ni nga def Sadio moom ñëpp xam nañ nan nga kon maa ngi lay sant bu baax a baax foofu laa yëkkatee samay kàddu di wax rek ne salle bi tàng na te ndaje mi yaakaaruñu woon ne nii la toll dañoo jëloon décision rek bu ñëwee pare présenté candidat yi teg suñ comité électoral jublu ci liggéey bi mais ñëpp gis nañ li nekk ci biir sax moo ëpp lu nekk ci biir loolu nag xër gu nit ñi am la ak bëgg gu nit ñi am ci projet bi ak yàkkamti campagne bi jot may wax daal ne nañ dugg ci campagne bi ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin te kenn bañ a gaañu non nga bàyyi ko fa dem sa yoon kon foofu laa yëkkati samay kàddu taala ñaar bu fekkente ne am na keneen ko war a rek nga wax ko muy Moussa Bala Fofana après ñu tëj jotaay ba salaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen jëf. jaajëf chers amis internautes di leen fàttali rek yéen a en direct. ci Mouhalim Info Mouhalim TV euh, depuis euh, ce soir ñu ngi fii euh, fi nga xamante ne bi moom moo di fii ci Mbacké ci li nga xamante ne bi moom moo di présentation des candidats yi nga xamante ne bi Pastef Touba daal dina koy woote fii ci Mbacké ànd ci ak ki nga xamante ne bi moo di Cheikh Thioro Mbacké waaye itam di fàttali le maire Balla Fofana mi ngi fi itam nga xamante ne bii moom moo di ah, Cheikh Bara Ndiaye moom itam mu ngi fi ah, ñëw rek ngir soutenir ah, ki nga xamante ne bii moom moo di monsieur Cheikh Thioro Mbacké ci présentation candidat bi nga xamante ne bii ñu ko fi doon honorable député Serigne Cheikh Thioro Mbacké naa rek ñu jëmale si Moussa Ba pare ngeen dimbali ne tànn na topp voilà. muy résultat yu xéwale yu ma amoon tàmbalee ko élection législative yu atum 2022 ci liste bu mu bokkoon ak taxawaayam